ñoo ngi tàmbali jataayu dañuy tuddee conclusion maanaam jeexitalu màggal gi dañ ko tàmbalee waaj ba agsi ci bis bi ba tey jii nañ ko baaxoon defe jàppe ko muy aada ci noonu waxtu bu ñu liggéeyee ba noppi ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ci mbooleem commission yi nga xam ne ñoo taxaw nekk ci comité d'organisation waajtaayu màggalu Daaru Mawti yi ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Abbas ñu taxaw seetlu ko wax nag li nga xam ne mooy kàddu yu mujj loolu nag mm, dañ koy tàmbalee ci yéen ñi nga xam ne yéen leen dajal fii muy lépp lu aju ci presse bi suñuy cant ak suñuy ngërëm ñu jëmale ko ci yéen ndax ittewoo gi nga xam ne yëg nañ ci suñu biir ne ittewoo ngeen ko waa Darou Mouhty rawatina màggalu Daaru Muxti gu mag gi nga xam ne li Daaru Muxti di bari bari ay màggal mooy màggal gi nga xam ne mooy màggal gu mag gi nga xam ne kii di xalifatu Cheikh Ibrahim ku fekk ku nekk mooy ki taxaw di ko saytu yàlla dogal mu nekk ci xilaaf ak borom Daaru Muxti gii tey Serigne Abbas kon ñaan yàlla sunu boroom mu yàggal ko ci sunu kanam lool te may ko itam ak wér ak kattan te noonu ñu koy naan ñaanalit dañ koy ñaanale Serigne Cheikh Sidou Muxtaar mi nga xam ne jamono ñuy wax ak yéen moom itam ànd naag noonu màggal gi mu ngi ci dëkk bi ba tey di ñaan yàlla sunu borom mu may leen kàttan ak wér ba taxawaay yi nga xam ne moom la ñuy war a taxaw di ko taxawee liggéeyu Serigne Touba bi ñëpp bokk di taxawé taxawee borom daru muxti ci jiitul serigne abbas yalla may leen katan ñu agalé ko ñu and ko ak ñom sant leen bu baax ci taxaway bi ni ma ko waxewoon fële ca cérémonie ba da ngeen ko àndoon nak ñun ci tambali ba ba ci mujj gi kon nag ak cant war na ci go xamné dara du ca des ndax euh, amna ño xamné amna ñu yéné ñew ci magal gi ànd kook sëriñ bi ci kaw ndigal waaye ay gàllankoor dana di am léeg-léeg loolu nag dina tax ba lu mel nii dana mel ne teew teew si nañu ndax boo sañoon lu yëngutu ci sa barab faw nga yëg ko faw nga ànd ca loolu moo tax ku leen ko jot li itam mel na ne e, jàppale nga ñu baree bari moo tax ñu sant leen ci gërëm leen ci kon sant yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ci barab ba moom rek lañuy ñuy fedd lii mooy sant mbooleem njabootu borom Daaru Muxti gi mu ko bokkal ànd ak ñoom liggéey bi ñu nangul ko ko te njaboot googu mbooleem borom këri borom Daaru Muxti yëpp kenn ku nekk ci biir comité d'organisation bi am nga ci ay ak njaboot goo xam ne ñi ngi ci di yëngatu di ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoo koy saytu ndax am ngërëmul sëriñ Abbas kon sëriñ bi sant na ñoom ñëpp way jur yi ak ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu jël dugal leen ci biir liggéey yooyu nga xam ne yëmul rek ci taxawu màggalug daarul Muxti gi loolu nga xam ne moom la taxawal te moo di diwaanul xilaafatul ibrahimiya boobu ñu wax noonu nga xam ne mooy li mu taxawal ngir taxawul liggéey yi nga xam ne moom la bëgg sumbal borom daarul Muxti sumbal ko lislaam ñoo ñëpp ñu ngi ci biir muy ñaan sunu borom mu may ñëpp kattan ba niñ ko bëgg a taxawee ñu niñ ko war a taxawee ñu taxawee ko noonu ginnaaw bi mu santee njabootu uh, borom daarul Muxti gépp ci ñi nga xam ne ñoo ko jege ci wàllu deret ci wàllu taalibe non lay sante kep ko xamne ki ginaaw bi mu sante serigne Cheikh Sidul mukhtar feddi li kàddu yu waxon ci mom lolé moy li nga xamne mom itam mom la yéene njabootug serigne Touba gep ñaan yalla may leen kattan ak wër defal ko l'islam gep defal jamm ci rew mi defal ko ki nga xamne mom la yalla tek ci bop rew mi tax njiit suñu borom mo koy tan bu ko tànnee ba nopi nak bu amé jamm rek njabot ko mëna ñu am jamm kon ñu ñaanal ko jamm mom itam lolou ci la bokk ginaaw bi nga xamé ni eh, itam ñi mu a jox ay ndigal ñep fi nu tok tok nañ fi def fi ay CDD tok nañ fi def fi CRD lepp ngir waajal magal gi ba ci bisub tay bi lañ ci togon diko wax diko sekk ak ñom la ci ëpp lepp am na nga xamne na lañ ko soxla woon kon nak lool itam ñu sant leen ci bu baax gëreem leen ci ci tant gi modi bu ñu santé ki di président de la république euh, sant ministre yi nga xamne seeni loxo waroon na laal ci magal gi te ñu defee ko na nga xam ne na lañ ko bëggee woon kon cant googu day daal dugg ci biir gouvernement bi yëpp ak ña nga xam ne itam nag bokkewuñu ci ñi war a taxawu màggal gi waaye xam nañ ne sëriñ bi moom li muy liggéey yàlla rek tax mu di ko liggéey sëriñ Touba rek tax mu di ko liggéey ak borom Darou Mouhty kenn ku ci ne jóg ak sa itte ak say aajo ñëw fekk si ko ànd koog moom ñooñu itam ñëpp mu sant leen moo xam ñuy liggéey ci nguur gi la moo xam ñi nga xam ne dañuy jiite ay parti politique nekk ci réew mi moo xam wet guñ mën a féete ci pouvoir wala ci opposition yépp ñëw siyaar si sëriñ bi loolu ma waxoon leen ne mooy mandarga mi wone ne diine mooy li nga xam ne moo moo fi sax te moo mën a dajale lépp moo mën a defar lépp ndax mbooleem ñi fi daje ci wàll yu nga xam ne mooy wutkati àdduna yi euh, lu mel nii rek moo leen mën a dajale foo xam ne yàlla rek fa nekk yàlla rek lañ fay wax yàlla rek tax ñu ñu woote kenn ku ci ne am fa yaakaar dem ca diine moo man loolu waaye bu fekkee ne du woon loolu kenn ci ñoom ku ne boo wootee ña nga féeteelu làng rek ñoom ngay gis waaye li xam ne moo dajalee ñëpp nag loolu mat a bàyyi xel la te mooy diine ji te loolu mooy li nga xam ne moo mën a indi jàmm tey ak ëllëg kon boo leen ko fi teg tànk rek ak boo mën a féete sunu sëriñ bi sant na la gërëm na la te xam na ne yëg nga ab wooteem yëg nga itam ab taxawaayam ba tax nga ànd koog moom bàyyiwuñ ci kenn ci biir loolu rek ñi nga xam ne tudd naa leen ne dañoo bokk ci ci ci nguur gi waaye seen loxo xëy na lee soriwutoon ci wàccaayu màggal gi ba may wax fële ci ci cérémonie ba dama fàtte ministre bu jigéen boobu ñuy wax Mariama saar nga xam ne dafa am cofeel ci sëriñ bi won ko ne ko màggal gi am naa ci ab taxawaay may itam am naa ci ak yëg-yëg kooku itam mu doon loo xam ne euh, ku ñu war a sant la ak mboolem ñi nga xam ne mel nañu noonu ak service yi nga xam ne wane nañu ndax bu kenn ku ne defee sa sa sa sa yéene ni mu toll rek lépp day daal di baax amaa nag diw mee moo jiitu wala quartier des moo ci topp loolu du ko jara ndax li gouvernement bi yor ñoom ñëpp ñoo ko bokk kee daa féete fee tey te fi nga féete fii tey bu ëllëgee ke mën na faa féete kon loolu jàppalanteeg gouvernement lañ ko war a tuddee moo tax kon kenn ku ne day mottali sa morom waaye rek li am solo mooy sëriñ bi nangu ne li mu leen santoon lañ ca man lépp def nañ ko ca lañ ko lañ ca def doy na ko sëkk loolu rek mooy li am solo sant mboolem ñi nga xam ne ñooy bokki kër yi diine yi nga xam ne ñoom lañ bokkal réew mi ak mm, ñi nga xam ne ñu ñooy waa gox bi ci boppam ñi nga xam ne mooy li dëkk ci ci ci ci département bi ak ci région bi kon ñu kenn ku ne daal sëriñ bi sant na la gërëm na la di wane rek ne xolam sedd na te ñaan yàlla sunu borom lépp li ñu fi def ci ay ay ay ñaan sunu borom jotal ci borom Daaru Muxti ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la fa nekkal lépp loo xam ne def nañ ko fi ci ay ci ay ay jaamu yàlla sunu borom nangu ko te jotal te te te may ñi nga xam ne ñoo desandi ci kaw suuf ñu am ak wér-gu-yaram ak fajug ajo goo xam ne e, ñaan yàlla sunu borom buñ ko fekkewaatee déwén kenn ku ne loo ca loo ca manoon nga defaat lu ñaar ca loola wala lu ko ëpp ñun suñu xol sedd na te loolu rek lañ ci wut tey nag lépp loo xam ne doomu aadama am na ko ci lu baax ci bis la ko amee ci ndigal la ko amee ci menn mbir la ko amee loola nag la ñuy wut ci sëriñ bi la mu wax ci ca jataay ba rek ba ma kookee di wax lu mel noonu ci wàllu bi ñu noddee ba noppi ñun sëriñ bi fu mu nu joxañ rek loola jàpp nañ ne ca la sunu lépp nekk te foofu la pas-pasu murit war a nekk lu la sëriñ bi joxoño rek nga xam ni sa faju aajo jàpp nga ne ci lii la nekk boo ci bu la bu la rawee boo tuut sa aajo duutu faju boo ko jàppee noonu rek dara du la la raw li fekk yaa ngi am kattan gi ak xel mi kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sunu borom mooy nu fekk ko déwén yu baree bari te kenn ku ci nekk delloog jàmm ci ba nga jóge woon yéen ñi nga xam ne ba tey yéen laa tàmbale woon ma daanee ko kenn ku ci ne fa ngay liggéeyee yàlla leen fa jàmm te euh, déggale leen ak seen kilifa lépp loo xam ne lii luy rafetal la sunu borom jaarale ko ci yéen lépp loo xam ne lii luy sikkal la sunu borom mooy musal leen ci ba lépp loo xam ne luy defarum réew la lépp loo xam ne luy defar ak bokk la kenn ku ci ne sunu borom may la xelum nga liggéey ci ndax loolu itam euh, buñ ko defee rek njariñu ñëpp lay doon te yaakaar nañ ko bu baax a baax ne sunu borom danañ ci dimbali ndax réew mi muy Sénégal dafa mel ne boo ko dee seet ñi fi dëkk li ci ëpp doole maanaam seen nature seen seen seen melokaan jàmm la leneen lu lu lu dul loola rek dafa mel ne lu fa gaar lay doon waaye dafa mel ne jàmm daal mooy li nga xam ne mooy moom moom la leen sunu borom mooñaale jàmm jooju leen suñu borom mooñaale na nga xam ne leneen lu luñ gis lu dul loola dafa mel ne lu fa gaar la yàlla ko yàlla téye bu baax a baax te jàmm jooju sax fi dakk yàlla defal ko suñu kilifa diine yi defal ko kilifa aada yi njaboot yi nekk seen ginnaaw yépp suñu borom sàmm leen aar leen may nun fekk ko déwén yu bare bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu